bi mooy. voilà par rapport au choix. au choix. Mm. non au man je ferai aucune pression au président Macky Sall. mais am nga sa xalaat. am naa suma xalaat. muy sama xalaat mooy nañ ko bàyyi moom mu def ay consultation am proposer ñu candidat parce que xam nga man am na suma xalaat am na ku suma xel def daj te du ma ko wax mais bu fekkee ñun dañoo bugg a nekk ci coalition bi képp ku sa xel daj nga nekk ko te ubbi wuñu ay ay compétition ubbi wuñu ay primaire lan lay nekk. pëccoo lay nekk pëccoo lay nekk. pëccoo boobu day dem ba nga xam ne bu ñu jëlee kenn te jëluñ ka nga doon supporter day fay indi sax frustration donc je pense que bu ñu teg benn pression de président de la république comme laaju ñu. bu ñu laajoo suñu xalaat ku nekk am nga sa sañ-sañ ak sa euh, volonté ne man damay exprimer ne kii mooy sama xalaat boo pare teg samay argument mais une fois nga ne kii mooy suma. xalaat keneen def ko keneen def ko je pense que ci biir coalition bi ak biir parti bi day indi pëcc xóot te li nga xam ne moom lañ ci namoon mooy am kenn koo xam ne mu neex la mu naqari la donc muñ li nga xam ne neexu la te ñun ñëpp ñu def bloc derrière lui loolu dafay yàq cette cohésion là donc na ko nit ñi bañ a yàq na ko aussi ñi nga xam ne ñoom lañ cible wala ñoom aussi peut-être la presse bi cible ne ay potentiel candidat lañ ñu bañ a aussi yàq loolu et puis bàyyi le président de la république mu choisiral ñu suñu candidat donc tranquillement comme leen jox ngeen jël mais oui parce que tout simplement kim ñu jox le président Macky Sall ñëpp xam nañ ne dafa jël une décision historique gis nga Sénégal président Macky dafa dalaa tey boo xam ne dafa redoré blason wu Sénégal ci wàllu démocratie Sénégal moo njëkk am en Afrique un président boo xam ne dafa dem ba biir nguur bi mu démissionné na ban bàyyi naa muy Senghor Sénégal mu ngi doog njëkk am un président africain boo xam ne la constitution may na la nga am un mandat merci ñi naan deuxième la ñenn nañ troisième la mais bu ko dugalee la constitution may na ko mu jël décision ne dama koy bàyyi parce que dama bëgg a ñoŋal démocratie. donc je pense que ça c' est des décisions ah, historiques tey. boo xam ne c' est des décisions historiques yoo xam ne kooku ak li mu liggéey Sénégal yëpp képp koo xam ne daf la proposé te moom nee na kii ñëw bu fekkee ne d' accord nañ ci wala moom sollicité na ko. dana ko indi son assistance kooku. ku la tànnal mu jël alors Honorable <laughs>